liggéey jànk laa liggéey fii dañ fee daje tey pour ñu wax ci sunu àq ak yelle ñu ñun nga xamante ne ñooy liggéey ci kër yi mu doon tamit loo xamante ne am na solo trop ci ñi nga xamante ne ñooy liggéey ci kër gi ci kër yi ndax ñi ñuy liggéey joxuñu suñu gëdd ndax ñoom pour ñoom doomu jàmbur du doom ñuy ñuy wax ne kër yi ñuy liggéey lu metti lañ fay daj lu lu metti trop lañ fay daj parce que li ñoom niñ la war a jàppee duñ la ko jàppee fay bi demee wut noonu niñ niñ niñ la war a tëyee duñ la ko tëyee jaam lañ lay def mel ni na sunu mbokk sunu mbokk yi jëlee fii leen yóbbi Arabie Saoudite ak Libye ak yeneen ak yeneen buñ demee ñu dox jàppe leen foofu mbuumu jaam leen def ay ay ay ay kii yoo xamante ne dafa metti comme si fii liñ liñ fiy daj bul xam bul bul xam nu demee daal dañuy liggéeyal koo xamante ne day Sénégalais la comme ñun mais yëf metti yi ñu fiy dund bari daal. waaw mën na la ci ay exemple comme d'accord comme euh, booy liggéeyal nit waaw comme comme comme ngay liggéeyal nit nii ñoom lañ la liñ la war a jàppee duñ la ko jàppee comme mooy bu weer bi dañ leen di liggéey sax weer bu dee ñu war laa fay duñ la ko fay téye sa salaire te dañ la boole liggéey kër gi yëpp lu metti lépp ñu teg la ko pour ñu pour ñoom doomu jàmbur du doom loolu daal muy doon ay métti yoo xamante ne moom ñuy liggéey ci kër yi ñu ngi koy dund mu metti trop. buñ gisee kuñ ci jàppale dañuy sant yàlla. ndaje mi nag lan leen war a mën ndaje mi ndaje mi sant ndax dañoo dañ ñun dañuy wax suñu jafe-jafe pour ñu jàppale ñu ñaan ya ñu gis nañ ne tamit gëm nañ ne bu ñu fi jógee xëy na dinañ am saafara boo xamante ne. lan mooy solo si man maa ngi tudd Aminata Badji nekk assistante comptable et finance au niveau de l'IDTS solo tey bi boo gisee ñu daje tey dañoo bëgg a ñaax. xamal ñi nga xam ne ñooy liggéey waaye daan na mbir na doole yi nekk ci biir kër yi nañuy toogee ci biir kër yi ak nañuy nañuy liggéeyee ndax ñoom dafa am convention ba nga xam ne moo leen tënk ba tey état sénégalais ratifié wu ko muy euh, convention 189 te loolu euh, ko buñ ko xasoon a ratifié waaye daan na doole dinañ am gëdd dinañ mel ni travailleurs ya nga xam ne ñu ngi nekk ci bureau yeeg ci entreprise yi di fayeeku comme ni euh, comme tout bon travail daal dinañ am seen gëdd daal dinañ leen respecté dinañ xam ne ñii ñëw nekkuñu jaam dañoo ñëw pour daan seen doole di yóbbu seen njaboot. est que def ngeen def def nañ ci ay jéego yu bëri def nañ fi caravane def nañ ci plaidoyer ba déposé ko au niveau euh, de l'Assemblée euh, nationale ba kii 1er mai 2013 euh, ministre bi ne woon na dinañ ratifier la convention. l'État nous avait promis de nous ratifier euh, cette convention boobu ba léegi nag ñu ngi ci topp bàyyiwuñu euh, baissé wuñu bras nag ñu ngi ci topp ndax ñu ngi dem ci zone pourvoyeuse yi di di sensibiliser di waxtaan ak ña nga xam ne ñoo fay jóge di ñëw dakaar di ut lu ñuy yóbbu seen kër yi daal boobu ba léegi ñu ngi ci daal ñu ngi def ay campagne ay sensibilisation fu ñu toll daal ñu ngi wax ak ñay liggéey ci biir kër yi ndaje mi ban réponse lay indi ci yooyu dañ leen di gën a ñaax te encore tamit justement protection sociale bu ñuy wax bi euh, fii dem nañ bay waxaane euh, semi bi nga xam ne dinañ euh, kii mutuel de santé yi ñuy yi nga xam ne kii ci plan émergent la bokk boo bëgg nañ tamit waaye daanu doole dem ba xam ne ñoom si lañ biir ci biir la ñu bokk du patron yi rek ñoo ko moom ñoom it si lañ bokk ñu xam. luy solo yi CMU bi ñu luy solal tamit euh, seen gëdd ñu xam ko ci biir société bi ba ñu ba ku ñuy liggéeyal dañ xam ne kat ñii duñu ay jaam dañuy ñëw pour ut lu ñu yóbbu seen biir kër yi ndax boo déggee nga baal ma nga nga baal ma ci kàddu jaam sax ndax jaam dafa rëy mais boo gisee loolu ma dugg ci tuuti ndax ñi nga xam ne dañ leen fiy jëlee du leen yóbbu ci dëkk naar yi ñooñu yaakaar naa jaam yi sax ñoo leen tane fu mu toll nii jëf yu ñaaw du nekk la seen doom yi naar yi seen doom yi sax buñ dee jàng jigéen ngeen baal ma ci kii ci seen mbindaan yi ñu fi jëlee lañ koy jàngee duñu duñu lekk ba suur duñu tëdd fu baax dañ leen dañuy mel ni dañ leen a séquestré te ñoom nit lañ comme nit ñëpp dañ fi jóge ba ñuy jógee Sénégal dañoo newoon ñoo ngi dem uti ju lu ñu am pour indi Sénégal ñu demee ba nekk nekk dañ leen tëj séquestré leen loolu moom nekkatul lekkatul moom nit kii moom moom travailler moom da dañ dul gisati sax benn këyit na moom nañ nañ teg seen tànk ca foofu te eh, teer kii ba ñu jëm bu ñu xasee ba teg seen tànk ñoom pour ñoom bokkatuñ sax ci eh, kii ci doomu aadama yi. waaw ci Sénégal ndax mas nañ leen mas nañ kii ci ay cas waaw souvent bu ñuy waxtaan ak ñoom bu ñu demee tase ci ndaje nii ndax dañuy partager ñoom bu ñu waxtaan ñoom dañuy wax am na kenn euh, benn formation bu ñu def sax kooku dafa ne dafa ñëw ci euh, kër gi liggéey ba kii war a dem gaanuwaay naa euh, naar bi ne ko doyet ah non doo ko fi defee munu ko lu tax du ko fi defee mu ne ko non doo ko fi defee puisque bokkul ci nee na moom ci biir kii daf ko mujj def foofu ci fu mu taxaw fii bañ koy bañ bam ñu koy nettali métti nañu mais affaire bi dañoo dem ba mujj nee mais tiens lii euh, euh, kii ki nga xam ne moom du sénégalais ñëw euh, nekk fii jël ka nga xam ne doomu Sénégal la ba pare def ko loolu waaw ci ban monde lañ nekk te ñun amuñu éducation boobu dañuy nettali de chose ya nga xam ne wax dëgg yàlla. dañu naan waaye ñun naka la nit mun a mun a defee nit ni moom yenn jëf yu ñaaw yi ay cas yu doy waar des fois da ngay liggéey ba weer bi dee ñu war la fay ñu jiiñ la sàcc day am dañ lay jiiñ sàcc wax ñoo xam ne de témoignage yu palpable lañ ñu jox loolu yëpp loolu yëpp dañ koy dund si suma loolu moom ci xonq nopp yi la ëpp ngeen baal ma nag euh, neexul dëgg boo koy wax euh, da nga koy wax ci digg bi mais ci ñoom la ëpp ñoom moom respecté wuñu nit ku ñuul ci boppam der bu ñuul boo ñuul sa der ñuulee booy liggéey ci ñoom moom respecté ñu loolu moom lu dëgg la moom. waaw euh, man Amadou Sarr laa tudd man maay yore secrétariat euh, administratif bu UDTS en même temps chargé communication bu UDTS. ci Thiès nag man maa représenté l'UDTS à Thiès en tant que coordinateur régional bés bu mel nii njëriñ bu rëy la ñu amal ndax ci ñun UDTS dañu euh, dañu am ay pàcc yoo xamee ni moom la ñuy doxale sunu biir ci kaw kenn ku nekk sa liggéey nan la tëddee ñi nga xam ne transport lañu nekk ñi nga xamee ne informel la ñu nekk ñi nga xamee ne public et cetera kon fenn fu ci nekk dafa am noo xamee ni noonu la ñuy doxee te it ñu am ay programme yoo xamee ni ci la ñuy liggéey waaye secteur de l'économie informelle mooy ñi nga xamee ni dañuy daan seen doole ndax ñun UDTS dañu séq dañu séddale liggéeykat yi ci ñaari pàcc ñii dañuy jaay seen doole mooy ñi nga xamee ne dañu naan bu weer dee nga fay ma nangam naa li defal nangam ñii dañuy daan seen doole ñoom ñoo yor seen cëggal guy ñooy seet waxtu bu ñuy jóg ak lu ñuy def ak naka lañ koy defee mais l'essentiel pour ñun moom mooy nañu dem ci ànd ak seeni moroom ci nawlonte ba lépp lu ñuy am ñu am ko ci dignité euh, ñooñu kon ñi nga xam ñooy daan seen doole muy tubaab bi di leen tuddee secteur de l'économie informelle tey ñoom ñoo aaye te aaye bi ñu aaye ñooñu ñoo gën a néew euh, couverture maanaam ñooñu la ñu gën a néew lu ñu leen jàppale ci réew ndax ñi nga xam ñu ngi liggéey sax euh, seen société de leen jël en charge waaye kii daan dooleem bu jëlalul boppam euh, mbiram dina sonn lu mel nii nag CMU nag dafa nekk loo xamee ni dafa ñëw pour lëkkale doole yi jàppalante am ci. ba ñi nga xamee ni ñooy mbindaan ñi nga xamee ni ñoom ñooy ñi néew doole ñi nga xamee ni ñoom ñoo fa ñoo ñooy ñëpp ñoom dañoo bokk ci secteur boobu te bu ñu demalee seen bopp musuba dina am kon jàppalante dimbalante àndandoo àndu nawle mooy tax ñu war a mën a génn ci mbir yi kenn ku ci nekk mën a jàppale sa morom kon loolu nag tey bu ñu ko defee fii ci Thiès mooy première pour UDTS def nañ ko ci Thiès du tere UDTS ñi nga xëy noonu la bindoo képp koo xamee ni yore nga dara da ngay ñëw bokk ko ak ñu ci des mu nekk loo xamee ni ñi tey danañ fi jóge dem euh, ci UDTS sensibiliser yeneen kuréel yi ba nga xamee ni ku ne dina xam CMU mooy lan CMU ban njëriñ lay amal euh, askan wi rawatina ñi nga xamee ñoo nekk ci organisation syndicale ndax dafa fekk si li nga xamee moom la syndicat di mos a dundee mooy dimbalante jàppalante aussi bien ci euh, doxalin. waaye itamit ci wàllu koom